xombal euh, oto bi paane am benn L200 bu jógee nawet si kanam di daw ak vitesse am léegi booy ma dendaloon fekk ma maa ngi sekk si waxtaan ba sori naa si waxtaan bi. Mm-hmm. booy bi jékki saa rek daw. fajar googu noonu laay soog a yëgën suñu waa kër def naa accident. maa ñëw ñu laaj ma cinquante mille. pour faj la. pour faj ma pour mu ñu soog maa dugal seen borom. moo la maa dugg seen borom foog ma joxe cinquante mille. jour bu may dugal laa gis ak bu muy ñëwaat di mu annoncé ni dañuy amputé sa tàng bi. jërë ngeen jëf ami téléspectateur people 221 ñi suivre ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen di ñaan réew mi di Sénégal yàlla na fa sunu borom dooli jàmm di nuyu sunu kilifa diine ak sunu kilifa aada yi euh, tey nag ñu dalal sunu benn frère mu di euh, Mass nekk sunu dëkkandoo vraiment euh, nekk nit ku baax nit ku disponible fan yi nag ku ne gis na ko ci réseaux sociaux yi ah tugg na nag du teew ñu ne daal il que ñu déplacé wu ñëw. seet si ko fa seen i Cheikh moom waxtaan frère dañ lay bàyyi nga nuyoo ñi lay suivre. waaw maa ngi nuyu ku nekk si turam ak si santam di nuyu Sénégal ñëpp rawatina waay laago yi képp ku ki nga xamante ne sa cër manqué na wala amee nga laago maa ngi lay nuyu bu baax. parce que ñoom ñoo ñoo ñoo tax may def TikTok quoi yaa ngi comprendre maa ngi nuyu bu baax ku nekk si turam ak si santam di nuyu sama papa di nuyu sama yaay ñoom aussi dañoo sonn si man. maa ngi nuyu ñëpp daal. d'accord fi may fi may njëkkee euh, muy man nga ñu ñëwaatal ci ci ci ci accident bi euh, naka naka naka la la arrivé en fait. Hmm, accident bi période Magal Touba 2021 la woon Magal Touba 2021 ma doon dem Touba àndoon nag sama waa parce que man mécanique laay def quoi formation mécanique laay def lii seen membre laay bu géejewaay léegi bi bi ñu. bi bi ma doon def stage fekk maa doon defee stage Castors may def stage après ñu amoon benn oto bu ñu fa liggéey tombeek Magal Touba jot ñu liggéey ko ba ci ngoon gi après ñu fas yéene woon jël oto boobu dem Magal yi jee bu ñu ko liggéeyee ba mu baax ñu jël ko guddi gi ñu déparé fii pour dem Touba léegi bi ñu dawee oto bi mu dawee ba xombal xombal oto bi paanee léegi bi paanee ñu wàcc ñun ñëpp maag sama si autoroute xombal maag sama gars ñu ma bokkoon ak garage ñëpp wàcc ma léegi ma ma si ginnaaw oto bi comprendre parce que courant lañ paanoon mhm. feu dara du tàq te amuñu woon triangle buñ teg si ginnaaw mhm. ma taal sama tos téléphone di ñiit pour wan ne gars yi am na oto bu paan fii kon di gars que foofu rëndam moon na te autoroute te oto yi duñ daw nànk mhm. ma taal sama toos téléphone wéeru si ginnaaw oto bi si ginnaaw oto bi di ñit quoi. pour pour en cas oto oto bi ñëw seen teew ñoo seen quoi xam ne am na oto bu paan fii nii. Hmm. après sur le coup cinq minutes ba dix minutes xam nga lu war a xew rek. Hmm. mat fay sama toos téléphone doo ko sama poos. wéeru si ma wéeru woon bousee ma fa di waxtaan ak booy bi booy bi ma dendaloon booy ma àndaloon di waxtaan moom tombéeg ñu ngi benn gain boo départ suñ benn moom mécanicien boo départ Dakar ñoo bokk garage pour dem Touba. ñu ñu doon ko laaj ay matériel mu ñu koy indee pour taxe ñu xombal jox ñu ko. Mm-hmm. léegi bi ma wéeroo noonu taxaw noonu fay sama tos téléphone dogal sama biir poche après dix minutes ma fay sama toos dugal sama poche léegi am benn L200 bu jógee nawet si kanam di daw ak vitesse am. léegi booy ma dendaloon fekk man maa ngi sekk si waxtaan ba sori naa si waxtaan bi. Mm-hmm. booy bi saa rek daw. léegi bu booy dawee ma tourné di xool booy bi muy daw ak bi may tourné di yem si oto bi benn la. rek oto bi muy ñëw ma tëb xaw a wéngalu nii mu jël sama pied gauche bi tànc ma oto beneen oto bi tànc mbëkk dóor pare si laa daanoo si recours rek bi ma daanoo ma tëdd foofu métti woon na trop ma tëdd fa trois heures de temps ambulance ñëwul gisuma fa motard bu monté kenn ñëwut ak métit bi ak tànk bi nu mu nu noonu lépp deret bi di sotti sonn ma sonn trop ba 3 heures ay 23 heures minuit laa defoon soog léegi trois heures du matin la kii ñëw la benn hôpital Abass ndaw xam nga ko seen ah. seen kii bi seen oto bi doon dem Touba. Hmm. parce que ñoom chaque année dañuy dem Touba léegi bi ñu doon Touba ren ma romb ma ma tëdd noonu bi sama benn booy daw si digg taxaw risqué risqué àddunaam yëpp taxaw tàllal loxoom pour ñu taxaw rek pour dimbali parce que boobu ñoom taaloon nañ seen signal seen kii seen signal yi. Hmm. léegi ñu fekk ma foofu ñu taxaw defal ma premier soin yi après bu ñu woowee ambulance ñu laaj ko ban euh, waa laaj leen ban hôpital la fa nekk ñu woowee sapeurs gars ban hôpital la fa nekk ñu ne Abass Ndao hôpital Abass Ndao bu Dakar ñun dañ doon doom rek gars yi ne leen hôpital bu mag ngeen seeral leen ko jëloon ko fa ko évacuer gars yi tontu léegi gars yi def noonu fekk minicar lañ ñoon seen oto yi ndaw yi lañ jëloon rek ñoom dañ doon dem Touba léegi ñu jéem maa xaj-xajal si kii bi si minicar bi si maal bi si ginnaaw jéem ma xaj-xajal ak ni ma defee soog ñu xaj-xajal ma ba dugal ma ba ma dugg ñu toog taal seen localisation léegi bi ñu taalee seen localisation di wër hôpital bi ma bëggoon gën a jege ñu bàyyi ma fa ñu mën a continuer ñoom dem. léegi bi ñu taalee di dem di dem di dem di dem ba gis benn hôpital benn case de santé bu nekk biir xombal xam nga dekk ale rek seen hôpital yi. Mhm. ñu dugal ma foofu bi ñu ma dugalee foofu. après ñu woo benn docteur ñu woo ñu fekk docteur bi sax mi ngi doon nelaw ñu yeew ko ne ko dañu fee indi woon benn cas échange boobu dafa métti parce que deret baa ngi seen rek. Mhm. si la docteur boobu si boppam yeewoo bi mu yeewoo ñëw jël genre lu mel ni puso ak fiir ñu tànk bi tasee noonu mu jël ko boole lépp ñaw sans perfusion mu ñëwaat dajale waat lépp ñaw ko ak méthode bi mooy yuuxu. yéeg mënuma man ko lii ngay def nii ban sens am sama tànk dafa dammu si boo ko ñëwee ban sens am mun ma noo yow teewuñu la fii parce que ñu mun ñu la dañ koy ñëw pour deret bi wàññeeku ñu mun a wàññi deret pour jàll la beneen léegi buñ ko ñëwee ba lépp fermé wu ñu jàpp ma si seen ambulance di dem ba pour ma hôpital régional bu Thiès léegi buñ ma yebee ay sept heures ay sept heures huit heures laay soog egg hôpital fekk na boobu woowaguma samay parents woowaguma samay woowuma sama papa parce que dañ maa ne si guddi gi ma woo leen parce que def naa accident ma leen déedéet su ma leen woowee leneen mun naa xewaat. parce que mun nañoo tiit. jug si guddi gi ñaari problème am. d' accord mun naa kaa muñ bu suba ñu soog leen woo incha allah suba ak jàmm. d' accord dinaa ñëwaat foofu ah. Euh, tey mën nga ñu nettali moment yi nga nekkee ci ambulance bi yan souvenir nga ci am loo xam ne tey yaa ngi toog di ko fàttaliku. ambulance bii surtout ambulance su kii ambulance bi ma jëlee feene ambulance bi ma jëlee xombal pour yóbbu ma Thiès ambulance boobu moom da ngay yore ba sonn barki yàlla parce que ambulance bi seen avanceurs yi dara doo ko si ambulance bu yéegee duraan bu wàccaatee comme si yaa ngi doo def soo xam nga sa tànk bu dammoo rek parce que quatre fracture la amoon. Mhm. tànk bu dammoo bu ralantee day maas maas boo xam te comme si yaa ngi doo ko dammoo mhm. dem naa sax ba saaga woon chauffeur ndax métit ndax métit parce que mënu woon demandé woon ba mënu maa maîtriser sama bopp. Mhm. ci ambulance ambulance bi daw une de temps ak lu teg diggante xombal ak ci hôpital mhm. ak ambulance bi ma ñam ñaba dugal ma mooy bu abaat ndaw bi. naka lañ la yëgalee ni dañuy dagg sa tànk. Euh, bi gars toogee bi ma duggee ci hôpital bi def euh, six ba sept jours. dugg naa si hôpital bi def fa six ba sept jours léegi docteur bi ma njëkkoon recevoir docteur bi ma njëkkoon recevoir moo ñëwaat parce que moom jour jour bu may dugal laa gis ak bu muy ñëwaat di mu annoncé ni dañuy amputé sa tànk bi et bi ma ko bi mu ñëwee ànd ak secrétaire am ma tàll sama tànk yaa ngi comprendre mu ne ma yëngala baaraamu tànk yi bi ma ko yëngalee yëngal yëngatuwut ma yëngal ko yëngal ko yëngatuwut man ne waaye nu mu mën a nekkee ni parce que man sama tànk bu ma yëngalee rek day yëngatu tey ma yënga yëngatuwut nu mu demee nii mënu ma d'accord yëngatuwut mënu ma ko waaw mënu ma d'accord fekk tànk bi mu ngi ñuul kukku léegi mënu mënu ma d'accord maa ngi ñëw après bi mu demee mu yónni assistant am bi assistant am mu ñëw fekk ma foofu ma tëdd mu indi benn feuille di lire lire après mu taxaw ne ma booy sawa man ko sawa man ko maa ngi si jaam mun ma booy est-ce que xam nga ni dañuy sa tànk bi man ko mooy amputé mun dañ koy dagg man ko dagg mun ma man ko yow man mosuma dox ba soox mosuma am feebar sama biir yaram hmm? accident kese laa def yéen ngeen téema fi sept ba huit jours kenn kenn faju ma da ngeen may piqué dem ñëwaat dem ñëwaat ngeen ne da ngeen dagg sama tànk bi mun ma lu ñu lay wax wax nañ ko tànk bi foog ñu dagg ko buñ ko daggul am na luy dund si biir sax yuy dund si biir te bu yéegee ba côté bii nii bu yéegee ba fii bu màttee benn butit rek danga fay mun ngaa ñàkk sa bakkan si loolu. Mhm. man kaa mun ma waa après ma toog noppi mu jàkkaarloo ma toog noppi deux minutes ba trois minutes maa ngi toog di xalaat foofu maa ngi xalaat bu bëri di xalaat toog xalaat xalaat daal. man man d'accord d'accord foofu foofu lay ñëw mais moment yi ñu la waxee dañuy dagg sa tànk euh, ndax moment yooyu noonu am na ñoo ci waxtaanal ñu demee ci sa famille ni leen dañuy sama tànk wala wala dañ jékki-jékki rek wax la ko nii. ñoom dañuy jékki ñoom ñoo ma ko wax directement ñoo ma ko annoncé directement ñu dañ koy dagg man ne léegi bu dee man sa ba maa décision fekk sama papa mi ngi ak man ak hôpital maag sama papa ñëw fa mu jëwoon nekk après woo naa woo naa sama famille sama papa ñëw si septième jour bi huitième jour bi sama papa sama papa jour yëpp mi ma assisté moom kese ma ñoom kese laa gis boobu yi ma àndoon sax damaa dem ba gisaatuma si kenn kese laa fa gis bi ma ko woowee affaire métti woon na ko trop parce que bi ma ko woowee ne ko gars yi ne dañuy dagg sama tànk après loolu métti na ko trop mu kii ko bu nu teew xolam après si laa ko indiwaatee ne ko papa man ñi nekk handicap man gënuma leen parce que man tamit liggéey ma loo xamante ni yàlla war na maa teg natt bi yow tamit liggéey yoo xamante ni yàlla war na laa bàyyi ak sa ñaari tànk indiwaat ko ne ko àdduna la demee. Mhm. chaque mënoo chaque jour di dund ak mbégte. Mhm. tey mu neex suba mu naqe bu ñu daggee sama tànk. ñi dagg seen tànk gënu ma leen. Mm-hmm. gaawul ko dagg. Mm-hmm. après si la waajaatee na ma waa d'accord. Mm-hmm. gars yi kii ko. moment yooyu lan nga doon yëg parce que yombul en fait ci ku doon dox nga jékki-jékki ñun dañuy. sama xel dem directement ci yàlla man affaire yooyu méttitu wu ma ko sax ba tey jii méttitu wu ma parce que loo waroon xew rek te xew na te maa ngi si sant bu baax. voilà. moment yi nga toog hôpital nan nga ko doon dundee. waaw moment yu ma toog hôpital moment yu gën a métti yu ma nekk hôpital mooy hôpital régional bu Thiès. parce que ma ñaari hôpital laa nekkoon. Mhm. hôpital régional bu Thiès laa nekk après ñu mujjee maa indi principal bu Dakar. Mhm. hôpital régional bu Thiès gis naa fa lu nekk. Mhm. aussi tuuti naa fa lu nekk métti bu nekk. nekk naa fa six sept ba huit jours nekk naa fa chaque jour gars yi dañuy ñëw parce que hôpital bi. gisuma fa docteur bu mag benn bu mag laa fa gis. mais ki nga xamante ne moo ma annoncé ni dañuy sa tànk. parce que te kooku moo njëkk bi ma duggee si hôpital bi tag kay dañ maa laaj xaalis fajal noonu waaye soo ko yëgën si waa def naa accident. te force forcément foog ma génn xaalis parce que damaa ñëw ñu laaj ma cinquante mille. pour faj la pour faj ma pour ñu soog maa dugal seen borom moo la maa dugg seen borom foog ma joxe cinquante mille booy ma àndoon kenn yooyu si samay sama famille ñoo ko ñoo laa mujjee woo. xamuma woon ba xam yoon nañ xamuma woon ñu jaay ñu daj ci lu nekk sama accident daal sama famille dañ na si lu nekk kii sama papa kii sama yaay daj nañ ci man lu nekk. Mm-hmm. ñu fexe ba jaayante cinquante mille ñu yónnee ma ko fa heure ñu doog a def na accident ñu yónnee ma ko fa gars dugal ma yàggu dara ñu laajaat beneen trente mille. laajaate beneen trent mille pour def ay yaajo yooyu noonu après si la sama papa di soo a ñëwee après si changé la sama papa ñëw. ñu kii ma ñu dugal ma ci biir ñu jël tànk bi kii ko dindi ñaw bi nga xamante ni waa xombal ñawoon nañ ko si bi ma doon wax docteur bi ñaw na ko. Mhm. ñu dindi ko teppi ñaw yëpp après docteur bi xool si biir xoolaat gis ni tànk bi xaw ma lu mu si gis noonu tas na après kii bi metti na trop mu jël bandage jubal ko xotti ba mu jub nii ba tànk bi tawee ko mu escorte mu bandage ko ba tànk bi def nii xam nga genou bi sax da koo bandage jeune bi sax da koo bandaasaale. Mm-hmm. bandaas lépp ba mu daj. Mm-hmm. bandaasee lépp ba mu daj après mu jël benn weñ weñ maa ngi koy benn weñ bu sew bënn fii fii ak fii si tànk bi mu bënn ko. takk si benn buum jël bidon 10 litres def si suuf ba dikk digg <laughs> parce que Seydina Muhammad wallaahi azim lu may wax lu wér la jël bidon 10 litres takk ñaari bënn weñ bi fii nii. Mm-hmm. fii mu takk fii buum takk fii buum. def ni tànk bi ba mu jub nii après ñu rangal ko noonu léegi tànk bi lii nii si kiiwu lal bi la tege woon lal bi nekk si tànk bi fa la tege ñu bàyyi ko noonu ron ko mu wàcc. noonu la léegi doon lañ ko bàyyee 6 jours 7 jours dépendance boobu ma la ko. te boobu yaa ngi yëg maa ngi yëg métit ci biir te boobu tànk bi mu ngi dund maa ngi sante ni tànk baa ngi dund te maa ngi yëg métit métit bu métti sax duñ ko def noonu rek maa ngi yëg métit mënu ma xaa bouger mënu ma def dara maa ngi yëg métit heure bu ñu ñëwee suba gi dañ may ñëw pikiir jëndaloo ma perfusion jëndaloo ma per mooy bi ñuy sampal pour mu wàññi douleur bi boo ko jëndoo duñu la ko sampalal. Mhm. sama famille dépassé nañ fa ay huit cent mille neuf cent mille si yoo xam te ne sept jours huit jours laa fa def. te foofu am daggoo fa sama tànk. Mhm. ñu sama yaay daj ci nekk sama papa daj ci nekk ñu jaay lu ñu amoon yëpp jaay nañ ko ndax man dugal ko si hôpital boobu noonu six jours ba sept jours yi. te te daggeewuñ ko foofu. te daggeewuñ ko foofu ñoom jour bañ dañ koy dagg. man jour boobu laay soo xam dañ koy dagg pour man bu ñu ñëwee dañ koy tabax waa dañ koy tabax après man damay dox dem ñibbi jour bu ñu koy tabax jour boobu laay ñibbi jour boobu lañ ma ne dañ koy dagg. d'accord sa retour sa famille bi nga ñëwee seen kër naka nga ko dundee parce que bi ngay génn da nga doxoon yàlla dogal nga ñëwaat. doon handicapé diisoon na trop mais man à chaque fois rek su ma gëstoo gis sama yaay gis sama papa rek. man foofu dootuma tiitat dara sama àdduna parce que man ñoom ñaar rek laa ragal ñu bàyyi ma si àdduna bu dul ñoom ñaar man tiitat ku ma dara si àdduna ñoom ñaar rek laay bàyyi xel jox naa leen kii boo xamante ni am naa force boo xamante ni mayaara naa leen force boo xamante ni tamit aussi xam naa ne si ñoom lay gën a métti nga jur sa doom am si moom yaakaar muy xëy ko wàcc nga am si moom yaakaar bu bëri ñu xëy ñu wàññi benn cëram lu mënoon mënatu ko hmm. xam nga loolu rek dafa diis ma bu dee si man chaque fois loolu laay xalaat chaque fois du ma nangoo wàccee sama kanam wala ma tërës si benn tërës bi ba ñoom ñu sentir ko. Mhm. parce que bëgguma loolu. Mhm. parce que dañoo daj ci man lu métti. Mhm. ba ma egg si fii tey. ci sa ci sa ci sa ci sa wàllu ay xarit naka nga ko doon dundee sa génnaat ci mbedd mi. samay xarit bi li mm, ma daan gën a poussé su ñëwee suñu kër seet ma bu ñëwee suñu kër toog noonu seet ma léegi génn bi ñoom bu ñuy génn. foofu foofu moo may met parce que euh, bu ñu daan ñëw suñu kër bu ñu dem damay topp seen ginnaaw ànd ak ñoom. Mhm. bu ñuy dem terrain ñu dem terrain. Mhm. bu ñuy dem feneen ñu dem feneen. Mhm. léegi bu ñu ñëwee seet si ma ñu toog waxtaan après ñoom ñu fas yéenee dem bàyyaat ma foofu ma toog. demoon naa sax ba ni barki Alxuraan damay toog si pousse pousse dañ ma buux ma ànd ak ñoom. que toog bi damaa doon ba mënutuma koo muñ. mais aussi benn affaire mi ngi si Sénégalais parce que boo génnee ci kër. boo bu ma ñëwaat bi may doog ñëw si mi bi damay gis ñi ibbi seen palanteer ñii di yéendu oh. wala kenn seen fa la daw comme si que la daw wala laa daw quoi wala kii lu ko daw dafa garaaw wala kii dafa am lu mu def te man maa ngi tubaab dem def accident ñëw mais dañ dañ la war parce que nee nañ gis nga nee nit dof boo koy daw day yokk feebaram mm-hmm. moo tax nit bu ko dara dara da nga a jege di ko encouragé mais du da nga koy séen fee da woo yaay yaay kaay bàyyi mat ñëw na ñibbisi na xoolal nu ñu def tànk bi waa nga dox am yoon dañ la doon seet ko ñi nettali mm-hmm. mais man loolu yëpp tiitu ma si mm-hmm. ginnaaw ma si dara te du ma mës a tiit sama àdduna mm-hmm. ni ma mel laay mës a mel te ni ma meloon daaw laa meloon bi may am ñaari tànk ni ma meloon bi may am benn tànk aussi noonu laa mel ba tey yëpp si loxo yàlla laa ko wékk rek sant yàlla bu baax. ci côté ci côté ci côté ci côté xale yu jigéen yi euh, est-ce que des fois doo ci waxtaan ak kenn sax mu indi xeebel genre. loolu dëgg la loolu mënut ñàkk des fois da ngay wax ak nit mu leer na la kii dara xeeb day leer na ki dara xeeb mais du la ko wax. Hmm. mais man tamit du ma la may kanam boo xamante ne danga may xeeb ba pare di ma ko wax. Hmm. man soo ma xeebee ak loolu doy na. Hmm. fa laa koy yem rek yow. man nit foo ma toll rek laa toll. nee naa la nu ma meloon daaw laa meloon man boo ma tollee fii ma toll la fii boo ma tollee fee ma toll la fii boo ma yëgee ma yëg la boo ma yëgul du ma la yëg nit nga comme man nit laa den nga te ñun li si kanam ba ci kanam la ñu xool quoi kii gën a rafet defin ba benn tànk ak borom ñaari tànk ñëpp a yem parce que boo demoon armée ya tey kenn du wax borom ñaari tànk fi la tëdd kenn du wax borom benn tànk fi la tëdd ñëpp a yem ci yàlla yàlla ñëpp la yem rek man foofu laa ko wékku quoi tey nan nga accepté lii di handicap bi waaw dama koy accepté parce que yàlla moo ko teg. natt boo xamante ni yàlla loo ko teg boo ko nanguwul da ngay sa bopp. wala bi nga xamante ni natt boo xamante ni yàlla ko teg boo ko nanguwul si mhm. mhm. àdduna. Mhm. sa àdduna du neex te sa àllaaxira na gën a métti sa àdduna. parce que yàlla bu la tegee nattu nanguwoo ko foofu rek juum nga juum bu rëy def nga fóot bu rëy parce que gis nga natt boobu boo ko nanguwul di si amee feebaru xool te boo si deewee ñaanu ma ko yàlla de mais boo si deewee boo demee si yàlla looy wax yàlla. boo demee si yàlla looy wax yàlla la moo rey natt bi nga ma tegoon laa mënul muñ ci àdduna ba ma dee ma xëy ma ñëw fii. foofu yàlla dina ma bëggal ñaari problème ngay am. problème àdduna ak alaaxira moo tax man sant yàlla bu baax natt bi ma dalee dama ko accepté. ba mu mujjee maa jaaxal man sama jëm bopp sax. sant bu baax. tey accident bi eh, bi mu amee mu tàqale la ak li nga moo nekkoon say rêve say passion parce que euh, xam naa ni ko bëggoon football nga ak tey loo xam ne yaa ngi ko doon bébét di ko rêvé ci say ci say ci say moment euh, naka ngay def bay surmonter loolu. man à fois rek damay jiita sam yaay jiita sam pap maa koy wax di la ko waxaat di la ko waxaat man heure leen gisee rek man du ma sonn man ragal ma dara sama àdduna. Mhm. man du ñëw rek noonu laa koy jëlee. Mhm. nu mu ñëwee noonu laa koy jëlee. Mhm. jiital si aussi yàlla. yàlla suñu borom. di di sant yàlla bu baax quoi di sant yàlla bu baax. Mm-hmm. ci ndogal bi mu ma teg. Mm-hmm. parce que moom mooy li ma gënal quoi. Mm-hmm. lii moo gën dee te tamit ñaaw gën dee ko lii moo tane tane na lu bëri sax. parce que gis nga koo xamante ni bi mu juddoo ba tey musul gis gis nga koo xamante ni bi mu juddoo ba tey musul ñam bànneexu dox. gis nga koo xamante ni bi mu ba tey musul wax koo xamante ni musul dégg yooyu détail détail yooyu yëpp boo koy xool rek. yow doo tiit dara. parce que gënoo leen ñooñu gënoo leen. Mhm. te yàlla taggal lu ngay teg. maa ngi dox ak samay béykat maa ngi doo sama soxla. wallaay wallaay wallaay tiit sama àdduna. Mhm. la si dara. Mhm. voilà ban message ngay lancé sénégalais yi nga xam ne sànq yaa ngi koy wax euh, dañuy dañuy xeeb nit wala tey ay critique yoo xam ne sénégalais yi boo handicapé duñ la teg fenn fii ban message ngay lancé sénégalais yi. waa di leen wax gis nga kuy ñaar ñuy jéggi dax. ñaa ñuy jéggi dex bu reetaan ki la parce que yow jéggee goo dex bi dund bu sotteegul aussi lu ne xaj na si yow xamal sa tay rek ak sa démb mais bu xam sa suba sa suba xamoo lan la parce que gis nga boo xoolee am na ñaar accident yu amoon temps yële passé xam accident yooyu ma doon wax premier accident bi est-ce que ñuy def deuxième accident fekkee wuñ ko fekkee nañ ko comprendre nga may wax mm-hmm. ñaari accident moo fi amoon première la ak deuxième ñu def premier accident ñu def deuxième accident fekkoon na leen fi te ku leen waxoon ñoom dinañ def accident après duñ ko mës a gëm àdduna noonu la demee àdduna moo demee noonu a chaque fois boo reetaan kenn nit warut xeeb nit parce que boo xeebee nit koo xam te ni yàlla ko bind foofu yaa ngi tuutal yàlla suñu borom parce que yàlla du bind ba pare nga critiquer bi yàlla bind wala di yore moo tax su ma gisee kenn wax si man lu négatif wala genre di ma ñaanuma yàlla lii ma daw daw ko parce que ñëpp mun ñu koo muñ. Mhm. loolu gën naa tax may TikTok. Mhm. ñëpp mun ñoo muñ lii. voilà ci TikTok boobu parce que gis naa ne aussi tamit am na ñoo xam ne dañ koy am di ko nëbbu mais souvent koy fësal ci TikTok bi. voilà damay gis damay gis ñu ba di ma message yow yaa tax ma am fitu génn nii yaa tax may am fitu kii parce que man loolu mooy sama mbébét. que bi ma lee dalee laay soo xam risque handicapé sax parce que kaay ma wax leen handicap boo ko dund mënoo xam lu muy parce que fii Sénégal handicapé yi ñoo fi gën a sonn. Mhm. parce que dañ leen a xeeb dañ leen mhm. boo xoolee lii di publicité lii di théâtre yooyu yëpp man gisuma si benn handicapé bu si assisté wala bu ñu jël ne ko kaay def li wala mhm. mais handicapé yi si nit ñi lañ bokk dañ leen war a yaatal jox seen gëdd parce que nit lañ te handicapé boo si yëkkati barki aw xuraan kariim bu la génnee nekk si xelam am na borom ñaari tànk yoo amuñu ko sax. gisal kii doxal ñaari tànkam ñaari loxoom. te xel bu mat amu ko. bu ko lii daroon tey da koy suufee ba dee. Mm-hmm. ñi critiqué nag. Mm-hmm. dañoo jël àdduna def ko kër te àdduna du kër. Mm-hmm. loo xamante ni da ngay rek demaat la. am na ñoo xamante ni nañ amuñu dund nañ te mais amuñu âge bi ma am ñu ñàkk seen bakkan ñooñu gënuma leen. ñooñu tamit nit yow mi des si àdduna. di gënoo yàlla dafa bind te yemalewut. te yàlla lu mu bind sa jë alaa kulli àll ci ngay jaar. loolu laay wax ñëpp. man ñii ñii damay ñaan yàlla soppi ren quoi. Mhm. yàlla bu ren soppee rek. Mhm. xëy na ñu changé. tey ban message ngay lancé ñi nga xamante ne aussi tamit euh, bëgg nañ la jàppale ci li nga xam ne ci nga nekk ak ci loo mën di yëngu. waaw man sama dama amoon voilà xam mun naa see ko sama wàllum assurance. pourquoi pas. parce que man assurance moom yoon man oto oto bi ma mbëkk ndeke ba may mbëkk keetu assurance am dafa jeexoon yaa ngi comprendre. assurance am dafa jeexoon si jour boobu parce que am na assurance bu ko toppoon bañ bañ ne ma kii assurance am dafa jeex comprend nga léegi si laa demee fonds de garantie bi nekk Dakar bi ma fa demee ñooñu di xool di xool di gestu di gestu di gestu léegi nee nañ ma ñoom ñu ngi topp ñu ngi topp borom oto bi parce que jour boobu foog mu indi as keetu assurance bi mais man sama droit laa nekk. man booy bu ndaw laa sama avenir dañ dama ko war a defar ba mu leer nañ mais buñ ma tardé instant bi may toog yëpp tardement la si man yaa ngi comprendre ñu ni ma foog ñu topp gaañ bi boobu ba tey ma defee accident man at ak ay mois ñu ne boobu ba tey gaañ bi dañ koy topp foog ñu topp ko topp ko mu indi keetu assurance ñu mën a continuer suñu kii bu ko indiwul duñ ko mën a continuer. neen tataan ma ma déglu leen xaar bi tamit dafa xaw a yàgg trop. loolu laa mën a wax man maa ngi xaar boobu bu ndaw laa tamit dama samay samay waajur dama yaakaar si man. Mm-hmm. te ma war a am naa mbëbët boo xamante ne muy teral leen. Mm-hmm. même si yee yi dal na ma sax mais am naa yéene bi trop. pour teral leen parce que dañoo sonn si man trop. Mm-hmm. boo xoolee li ma dépensé hôpital yëpp samay waajur la jógee. ay millions yu teg samay waajur la jógee. te xamoo takkale takkale takkale takkale ba takkale loolu yëpp ba ma mujjee tey toog fii di wax ak yow. parce que alxuraanu karim mbëbët boobu rek laa am man dimbali leen. donc euh, merci vraiment kontaan nañ ñu ngi lay encourager aussi parce que li nga wax sànq rek santal yàlla bu baax ndax tey yaa ngi toog di ko nettali di toog ak sa jur man maa ngi dox aw ma ndey aw ma baay te maa ngi koy dox sama yaay ngi ci armeel sama papa ngi ci armeel te maa ngi yor ñaari tànk kon tey euh, bu doon dañuy changer. Mhm. man dama naa la kaa ñu weccoo ma jël lii. ànd ak say wayjur yow nga jël sama ñaari tànk di dox. Ah, waaw moo tax moo xam ma wax. donc kon man maa ngi dund loo xamante ne nii maa ngi koy méttitlu mais àdduna moo demee noonu. dëkk bànneex boo gis yoon bu day diis. dina métti nag ci gentleman dina ne métti aussi ci góor yàlla mais dangay gëm ni euh, lépp loo gis rek yàlla sunu borom amaana liy ñëw. Mhm. moo doon loo xam ne nii lu gën la. donc ñu ngi lay encouragé euh, euh, di la wax nii la yoonu ndaw moom nii la rek tey lan ngay tàggatoo ak lan ngay nuyoo aussi sa famille. sama famille moom maa ngi gërëm sama yaay bu baax di ko gërëm di ko gërëm di ko gërëm bu baax di ko sant bu baax di gërëm sama papa aussi di ko gërëm bu baax di gërëm tamit aussi Émilie tant maam Émilie parce que kooku tamit ba may jógee hôpital Thiès di ñëw Dakar sonnoon nañ si man trop maa ngi gërëm ñëpp daal di gërëm sama yaay di gërëm sama papa di gërëm Émilie di gërëm ñëpp di gërëm sama xarit di gërëm ñëpp maa ngi gërëm ñëpp daal maa ngi sant ñëpp donc merci yéen ñi nga xam ne yéen àndoon ak ñun du ñu suivre xam naa numéro téléphone bi dinañ ko def foofu pour képp koo xamante ni bëgg nga ko jàppale parce que Sénégal euh, am na ay bonnes volontaires yoo xamante ni dañuy def te yàlla tax donc képp koo xam ni bëgg nga ko jàppale rek boo jokkoo ak ñun numéro téléphone bi incha allah dinañ la ko jox nga jàppale ko ndax jeune la nekk espoir am ñu ko yaakaar aussi kon ku ko jàppale jàppale nga euh, jeune aussi bon <laughs> ah dama doon da ngay jàng ba tey. waaw maa ngi jàng ba tey. lycée Limamou Laye. lycée Limamou Laye bu Guédiawaye formation mécanique bi maa ngi koy continuer. d' donc kon mu ngi noonu mu ngi continuer jàngam ak formation bi mais tamit teewul tamit gars yi war nañ cee a jàpp daal ñu ngi woo képp koo xam ne bëgg nga ci jàpp rek ñu ngi lay taalal loxo nga ñëw jàppale suñu frère bi di leen jox yeneen di daje ci suñu yeneen émission fii ci People 221 jërë